bañ kumpa di xam nit ñi lu ci luñ nekk du ne koo xam problème man ca dara de loolu kenn mënu ko waaye nag quand nga nga jéem ca wax ca dox ca ba xam fu muy mujj rawatina ñi toll ci jàng ak ut liggéey ak toppatoo soxna ak sañ ci àddina parce que bu doxul tey rek ëllëg du dox ñi ñuy tagg ñëpp ñëpp ñëpp parce que seen démb dañ amoon ñu leen saytu ba ñu jaar fi jaar bu ñu seetaanee nag génération bu ndaw bi ci jamonoy mondialisation buñ bëggee wër àddina bi yëpp benn bouton la ñuy bës rek ñay caaxaan di caaxaan ñu leen gis ñay mooy yàlla ñu leen a gis ñay saaga ñu leen gis gis naa mbooloo moo xam ne ci benn télévision may ut rek romb ca ña nga mel ni ñaari yoon suñ mbooloo mi góor ñëpp def yaram nga leen xol caqi urus doomaraam jëleen jiite nag ma nga toog ci fu kawe mag naa leen suñu daje bi am na juróom-ñaar fukki dëkk ci àdduna bi mënuñ ko faa def tey man ne ñooñu maa ngi leen di ndokkeel waaw jamono jooju nga xam ne nag moom de frontière amatul te bàyyi gaaw ñu koo wax 1961 xëy na sax wax na ko lu ko jiitu man ci laa ko déggee man muy wax ak Nkrumah Tito Brezhnev bàyyi na leen bokkuñu luñ gëm mag yéen waaye quand même war nañoo mën a dëkk ci jàmm bu bu maandu amee rek ndaxte àddina bi comme as ndëkk laa ko jàppee man suñ bokkut luñ gëm itam nañ am pénc moo xam ne balaa dëkk bee lakk boobu bàyyi ma ko kii daf ko akolaat ngam ne ma daf ko akolaat ko kon nag ay mbokk lañ daal bëccëg bi yëpp bëccëg bi mooy bi ñu daje pour bu ñu lakk ñu mun a bay commerce bi dox bàyyi na nag bu ngoonee jullit xam na fa mu jëm moom mooy yàlla bëgg ak yim xemem ak yàlla bañ ak yim aaye foofu mu ne ku dul julli nag moo gën a xam fa mu dëkk boobu la ko waaj a akolaat léegi nag jamono ji laa ne mag ñi man dama rafet njort ci mag mu mag yar bu xatee itam dinañ am pexe mais nag ndaw yi il faut ñu bàyyi ko xel bàyyi daf leen a beral loxo ba tay jamono ji la gën a war daayira yi war naa soppeeku war non warul soppeeku sax maanaam maanaam war na war na am volet toppatoo ndaw ci di ko yee ci di ko sawarloo ci di ko xamal ñi xam te amuñ jotu jàngale buntu ubbeeku na jël ay kaset def ci ay dërs yu leer ki la laaj junne yoon mën na déglu kaset junne yoon ñu organiser ko sëñ Mamoun dafa ci wax biig ay baat fi ne ma dañu fexe ba ba jàngale ci ay kaset yuñ toppatoo nag du ku nekk wax lu ko neex rek di wër di jaay bu ko defee xale yi xam te itam centre yi ñuy fexe ba nit ñi di seet li ñu war seet buñ demoon ba Sénégal am autorité boo xam ne liberté d'accord mais pas liberté ak axlaaq su ko defee ñu ne même borom cyber yi am nag poste yu dul génn fii ndax suñu réew mi dañ bëgg nit ñi wëttali ku mel duñ yàqu mais loolu mën na ko bu nit ñi demoon ñëpp di di xaru benn bés nguur gi war na leen jàpp ñoom ñëpp ndax bu ñëpp xaroo nguur dootu fi am kon nag yooyee di yàq jikko koy bàyyi dafa ne woon nañ ko moytu waaw nee na as ndëkk la as ndëkk nag dara la buub fa moo tax ñu war a dimbalewante mbir yi lu am solo la yette xam-xam mbir mi du xam-xam maj mën na koo wax am maj soob bu wax sax dégg ci fan yii mbir mi du xam-xam mbir mi du réer de mukk du réer danga bu borom xam-xam bu sànkoo ko sànku na du ko tere sànku waaye nag cosaan bi mooy ni bàyyi jaar daal ku ne jéem caa jaar lañ nga ca man rek loo ci tële yàlla mën na laa dabaatal te ñu xam ne kenn kenn. barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy